altine fukki fan ak ñeent ci weeru octobre 2019 fële sa Médina mbir mu doy waar xew fa te duñu ni guleet mu fiy faral di am série 3 angle benn balcon bu daanu ba benn nit ñàkk ci bakkanam am ñu ci gaañu ay gaañu gaañu yu metti ba ñu yóbbu leen fële sa hôpital principal looloo waral askan wa jug yëkkati seen kàddu ñoom dañu ba pare ñëw di feexlu ñuy feexlu daal ñi si des ñu ngi hôpital. ndaw si yàlla na ko yàlla may àjjana moom ñaanal na boppam ndax ndaw si man sama xaritu jabar sama jabar bi ma seeg man di jur samay di sama aaw jur samay samay doom xaritu benn bakkanam la danaan toog ni ci lal ma toog ni ndaw toog ni waxtaan muy ree rek xale yi nekk naa yëpp mu leen di xelal ku mu gis mu leen nuyu di la reetaan di la wax lu baax di la jubanti jubante na fi xale yu bëree bari baax na ba ci kanamu yàlla yaayam dem na mu yor kër gi jàpp ko wax dëgg yàlla gëj na maa gis jigéen bu mel ni moom fii daal duñu ñu fi dund lu dul ay coono rek mais ay lépp ñu ngi sant yàlla teg ko ci loxo yàlla ñun daal jaaxle nañu ba ci kanamu yàlla dañu yaakaar ne état bu fi nekkee day dimbali ay njabootam te waa Médina njabootu état lañu ndax lu état woote Médina da ciy dugal loxam waa Médina ñu ngi góorgóorlu ci guddi di góorgóorlu bëccëg ñu ngi pré protéger seen njaboot ak seen i waa kër seen doom ak ñëpp dañu jaaxle xanaa jaaxle rek waaye nag comme ñun ay jullit lañ ah ñu delloo ko si borom bi rek ah, parce que yàlla moom ay mbiram ñëpp xam nañ ko lu ko neex lay def te lu mu def rek am na lu tax mu def. ba ma ko yëgee affaire bi mun naa waat ci màggu yàlla ne dama am problème mu jóg dox parce que dama tiit ci kaw terrasse daa nekkoon escalier yi mënu ma koon wàcc ndax dama tiit mënu ma gëm ne loolu dëgg la ndax dama tiit wax dëgg yàlla ba ci kanamu yàlla dama tiit ndax Sayda vraiment wax dëgg yàlla. Sadio Dione nekk na jigéen ju baax jigéen ju am yar jigéen ju am lislaam d'abord sax day jàngal xale alxuraan ak lépp nekk nit ku baax yàlla na ko yàlla defal àjjana. sapeur yi il paraît teel nañ ñëw bi ñëwee indi nañ matériel bu sophistiqué euh, li ñu waroon def yëpp def nañ moonte de seen maire commune ba di Bamba Fall na ay kàddu di artu kilifay dëkk bi ngir ñu jug si si teel balaa yeneen jéyee di am. maire Médina il paraît jaar na fi jaar na fi Massaw. daan na fi masawu et puis mu ngi mu ngi lu rafet dal. di ñaanal ñu si am ay blessé yàlla fëgg seen bopp ba ñu jug di ñaanal soxna Sayda jonn moom mi ñàkk ba kanam yàlla xaree ko arjana. Sayda soo xuleeg sa jabar mu jubóole leen so xiifee ba doo ci kër gi mu jox la nga lekk soo maree mu jox la nga naan soo meree mu woo la la ma ngay yi wax ñun mënuñu ko fay. ñaanal xare ko aljana fii si Médina euh, Systemax 7 Vision TV